ne Youssou Ndour. waaw xam nga nag déggul xam nga nag lu ma neexee moom. mais xam nga kenn mu si dégg Youssou Ndour mu génn di tontu waaw loolu jàng naa ku mu raw ci àddina ci la rawee. noppi yàlla sax du ko. mais nag mës na wax mës na wax. tey la ko yàlla gën a teral. mës na wax wax bu am solo tey la ko nit ñi gën a bëgg. mës na wax wax bu am solo mësoo dégg ñu ne Youssou Ndour jamono bii daa fay. Mhm. fam ne woon démb ak bërki démb fa la nekk. Mhm. te li mu fi investir ci réew mii. Mhm. nit mën naa wax de waaye jëf li mu fi jëf. xool yor leen seen i bët di xool mës naa ko dégg mu wax wax bu am solo mu ni ñi nekk ci internet bi di xaste ak a saaga waate seen dundul moo leen neexul neexul te boo koy seet boo koy seet gis boo ko xoolee ba xool ko mhm. dëgg la waaw waaw dañu am leen metti waaw waaw parce que nit ki la plupart boo dee seet ñenn ñi mhm. euh, dafa mel ni ci yenn conditions de vie yi ñuy nekk Sénégal moo toll foofu saa neex waaw soo banqué da ngay bëgg ñëpp banque ah. waaw lekk ma soo amul xaalis da ngay bëgg ñëpp ñàkk. boo lijjantee mu dëgër ku la romb baax le da ngay bëgg mu bon le loolu mooy réew mi. Mm-hmm. dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne bëgguñu nit ku am teraanga. Mm-hmm. bëgguñu nit ku yàlla yëkkati. Mm-hmm. loolu mooy seen problème bu ñu amee problème seen xol bi du du bëgg. dañuy bëgg ñëpp yem ak ñoom taba àdduna yi tukki ñëpp du ñu yem parce que yàlla moo bind nit ñi. tolloole wu leen ni juróomi baaraam yi wuutee noonu la wërsëg yi wuutee ñii dañuy am ñii ñàkk ñii di feebar ñii di wér ñii di am ay tolof tolof ñii seeni affaire di baax addina mhm. noonu la ko yàlla bindee mhm. ku ne lii sa cër da nga ci jot mhm. mais bu fekkee sa dund gi nag da ngaa bëgg a dund façon dundin boo xam ni tey sa saaneex ma nga xamoon démb ak bërki démb am na benn avancement bu ndaw nga ne du fi amee est-ce que am na am na ñoo xam ne dañuy mer rek man daal lenn na am na ñoo xam ne yor ah. jabar yor ay doom nekk sa biir kër nekk kilifa nga toog jour ñu bindal la lu ni weng wengaaral jaxase sa xoli doom yeeg sa xoli jabar yi. dara te dara li ñuy wax. wóorul saa neex nañ bañ xam li lay naqari rek. voilà réew mi saa yu nu xamee ni da ngaa bañ ku la bindal. la ilaha illallah wala ñu wutal la limite. la wala ñu lay conditionné ngay def di leen rendre compte. dëgg di vidéo di leeral waaw. dañ lay faatu nga faatu fa yàllaaw dañ lay rey. te import export dañuy jëlee si kii. bu nu xam li lay naqari. dem tontoo fële. xoolal saa may leen liberté ñu bind lu leen neex. waaw buñ la buñ la tënk. déedéet maanaam luñ naan ah saa neex mii day star la rus naa lii wala du def bul dugg ci gaam boobu. waaw ah, bàyyi loolu. luñ lay jombale sa bopp ne ci. xoolal bu la ke. fii rek lañ may gis fii. bu la xoolal saa. saa bu la kenn colonise. man wóoruma bu la kenn tënk. ay diw nangam ak xam nga yenn saa yi nga gis ko naan la xam nga yow da ngaa siiw am na loo xam ne. waaw ko suru xalal na dem. waaw na dem waaw. dëgg la baal mu dem. waaw réew mi amul gaynde amul bukki ñëpp ay nit lañ. waaw ñëpp bokk bukki aan la am. <laughs> bokk yam. <laughs> gaynde la am. est xam nga man damay wax dara. Euh. may ma sama jàmm duma ko wax nit. jàmm nit a koy wutal boppam. man doo nekk ci sa jàmm. xañ ma jàmm di ma xañ jàmm. mais looloo fi am. parce que ñoo bokk réew mi. waaw. kenn moo ñu sàkk muy yàlla fa nga jóge fa jóge bokkuñu ndey bokkuñu baay nga yow sa vie da koy doxalee ni mu la neexee man sama vie da nga koy rendre impossible loolu kenn waru koo nangul kenn. voilà ku dund ku ne. ki ñu gën ki ñu gën. waaw muy Seyduna Muhammad. lu mu déggul amul. waaw waaw dëgg la. soxnaam Seydatuna Aïcha. waaw tuumaal nañ ko ci digg dëkk bi ne daa am jëkkër am far. waaw sayyidatuna Aïcha yonent bi amul luñ ko tuumaalul nee nañ ko dof nga nee nañ ko kat nga nee nañ ko dangay liggéey nit ñi la topp an toppee wuñ la seen sago mu muñ yàlla ni ko wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablika maanaam suñ la weddee wala ñu lay saboote wala ñu lay sosal muñal defoon nañ ko yonent yi la jiitu mm, te dañoo muñ saaneex yàlla mi bind muccul déggoo fii ñu naan yàlla am na doom déggoo fii saa neex yàlla amul luñ ko tuumaalul déggoo fii yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul luñ ko tuumaalul mhm. Serigne Cheikh Tidiane si mi nga xam ni mooy sama référence almaktuum mais lu ne wax na ko mhm. mais boo nekkee ci réew moo xam ne nag ñi fiy dund mhm. seen gémmiñ gi bi leen ko yàllay jox wax ak lekk tax foog nga bàyyi leen ñu parler ah parler mënta ñàkk ki amul lu dul parler. Hmm, ah, euh, bàyyi ko mu parler. fa mag mu baax xam nga lu ma waxoon. li ñuy parler bari na nee na nit ñi bu ñuy wax lu leen wóorul. Hmm. del xëy di def luñ mënul. tëb. la ilaha illallah. oustaz delluwaatal foofu. Abdoulaye Wade daan na wax naan. Euh, euh, nit nga maam ko dóor ko dëgg la. <laughs> nit ñi bu ñuy xëy di wax ci yow lu leen wóorul. waaw def luñ mënul bàyyi leen fa di def luñ mënul. dëgg la oustaz nag. am na koo fan nga bëgg a am na koo xam ne am na koo xam ne pour mu dab la. Ah. dana daw quatre mille quatre cent millions kilomètres pour mu dab la. fekk yaa ngi dem sa poussière sax du ko seen. coono lay dëkkee ak naqaru xol rek waaye ba ilaa yow mi din du làng ak yow. yàlla nañu yàlla boole ci ñun jur di. dama bëggoon laaj oustaz tuuti. waaw ci fenn fenn. oustaz mbiiw ni sàmm dugg nga fa ñaari ñoo waxal maanaam quinze personnes yoo waxal kenn lay wax dëgg que xam nga ni fen malaaka dañ koo allergie yi nekk fi Sénégal bu senegal saa yu nit fenee malaaka yi seen bakkan yi day mel ni lu fat ay ñi nekk senegal di ko am nañ nekk Sénégal moom ñu ngi bëgg a deekoon ah kon ñun eh, kon yow eh, mbaa sunu malaaka yi eh, yàlla baal génnuñu réew mi jeex na. dañuy fàtt dañuy mel ni dañoo. lacrymogène est-ce que xam nga ni wax nañu ni. fa yàlla nekk muy kursi yu. waaw aras ca kaw. saa yu doomu aadama bi fere fenee. Hmm. foofu dafay mel ni lu am genre tremblement de terre. way <laughs> alaaji ji tey oustaz. tey bis est-ce que xam nga ni saa ne. nga ne kursi yu ku fa ne. <laughs> kooku mu ngi dégg bruit yu doy waar. yow nga ne kursi yu ku fa ne. oustaz wax ma nga ni kursi yu ku fa ne bàyyi ree ji kursi mooy siis siis bi yàllay toog waaw mu yëg kursi yu suñu borom a fay toog wax na nu ni saa yu nit fenee waaw ca kaw dafay am tremblement de terre siis bay yëngatu fenu doomu aadama yi da koy yëngal fii yàlla di toog ñu di ko yëngal laa ba pare yonent bi nee na iyaakum wal kazibu fa inna al kaziba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an naar wa maa yazaalu rajulu yakzibu wa yataharra al kaziba xatta yuktaba inda allahi kazaba saa jàppal seen national waay waaw moo gën nag yonent bi nee na <laughs> hmm. nit day nekk ci àdduna tàmm ay fen tàmm ay fen ba ñu mujj soppi turam ca aras tuddee ko fenkat bu dee dem ci yàlla lan lañ koy woowee fenkat ah malaaka yi dañuy effacé turam déggoo li mu wax dina wuyu buñ ko wélool xam nga suñu émission moom du neex dafa <laughs> moom daf ñuy daaj ji di koy daaj. <laughs> non man damaa na fen <laughs> te ñooñu. am na koo xam ne tur wiñ koy woowee fii tuddatul noonu. ay mais ah, ñu ne ko oh war a joxe sax war a dem cinéma. la ilaha illallah. ne maa nga ñu koy woowee fii. Ah. moom noonu lay wuyoo mais ca kaw. soppi nañ turam bu yàgg a yàgg te buñ xasee effacé sa tur. waaw noonu ngay deewaale. léegi kooku boo koy ñaanal mu deewoon kon loo koy ñaanale doo jaar ci turam xana malaaka buñ lay rappel dañ naan fenkat nangam jaar ci sa sant. fenkat njaay wala njaay. njaay wala jóob. wala jaxumpa wala géej. sa sant lañ dul changé mais sa tur. sant ba bàyyi bi ak moom moom moo non mais ça c'est est-ce que xam na est-ce que xam na est-ce que xam nga am naa man ñoo xam ne. hatta yuktaba inda allahi kazzaban dem ba ñu soppi sa tur ca ca kaw tuddee la fenkat. waaye koy fan dina dugg àjjana. nga foofay duggee déggoo ñu ne la wa innal kadiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an naari. safara da lay yóbbu maanaam fen da lay tax a dem safara. mais lu tax olof ne euh, fen buy defar. moo gën dëgg bu yàq loolu moom mosuma ko gëm sama àddina déet mais xam nga loolu luy loolu waaw parce que dañ koo leeralul nit ñi lan mooy loolu waaw loolu nag bëgg naa nga ñëw dañu ni fen ba defar diggante waaw al islaahu zaatu baynin waaw maanaam Aziz ak neex réeroo am ci seen diggante nga dem naan Aziz Saneex naa ko mu wax la lu baax ak li yonent bi wax ci ñaar ñu xuloo waaw nga xam ne ñaari jullit suñ xuloo xuloowee lu ëpp ñetti fan ku ci julleeti yàlla ni suur naa gedd naa ko bëgguma ko mm-hmm. ah? man gis naa ñoo ñu ngi si diis ans. saa yoo xuloo weeg sa mbokkum jullit saa neex. mu ëpp ñetti fan xuloo ba. loo julleeti yàlla nee na merci. bu tombeeg weeru koor moom mën ngaa jël congé. merci la la yàlla wax. léegi nga ñëw bëgg diggante ba baax. léegi nag nga bëgg a defar diggante Aziz ak Saaneex. waaw nga foofa fen bi dagan na. dagan na fa. waaw nga ñëw ni Aziz nga ñëw ni saa Saaneex. Hmm. Aziz dañoo reerandoo démb. waaye nit ku la bëggee ni la Aziz bëggee musuma koo gis. Aziz li mu seede ci yow démb ak li mu wax ci yow. nga ni fan la woon mu ne kër ñoom diw. xam nga am na loo bàyyi. nga ñëwaat ci Aziz ne ko li Sanex wax ci yow dégg ko. nee na bëgg na laa nuyu bëgg na laa tudd mais xamul fu muy jaar. nga ni non garaawul bàyyil ma woo ko. moom tam mu ni non garaawul bàyyi ma woo ko. ngeen daje mais foofu kenn du soppi sa tur. fen ba dem loola fen la wu ñu soppi dëgg. Ah. parce que da wax ba rafetal diggante. dëgg la. alaaj boo mais am na xam ne xam ne am naa ñoo xam ne xam naa leen dañuy fen ba gëm ba gëm seen bopp. fen seen bopp mais fen kat dëgg day dem ba gëm ay fenam. waaw. eh fen ba gëm sa bopp. mais est-ce que dëgg. mais yow réew mi yow yow ndakaaru gii. est-ce que xam nga ni yonent bi dañ koo fekk mu sóonu. waaw sóonu nii. waa soonu xam naa sóonu. ñu ñëw ni ko dañ lay laaj ndax jullit dana njaaloo. mu ne ah mu ne ah seytaane mën na koo mën mu def ko de. Hmm. ñu ne ko ndax jullit dana sàcc hmm. mu ne ah seytaane mën na koo mën mu def ko de hmm. ñu ne ko ndax jullit dana fen mu jug toog ni bërët ne bërët moom yonent bi ci xaal bi hmm. ne al muminu laa jullit du fen ñu ne ko ah mu ne al muminu laa yakzibu jullit du fen doq ca kaw yonent bi ne na du fen qulil xaqa walaw kaana ala nafsi waxal dëgg doon tele sa bakkan bii daf ciy des Sanekh bul fen mukk pour am daraja bul fen mukk pour bëgg lu neex nit am na ñoo xam ne ñi leen jege ñi leen jege duñ leen wax dëgg mm-hmm. am na ñoo xam ne ñi leen jege ci fenn yi ñu leen di fen ci la ñuy ci la ci seen diggante di neexee am na koo xam ne saa yoo ko waxee dëgg mu wan la gannaaw parce que bëggul dëgg dëgg la mais oustaz ak nettali ñaar yooyu benn la mag ñi dañuy war dañuy faral di wax ni fen bokk na ci fen mm. di nettali dëgg guñ la laajul. <laughs> dégg naa. yenn saa yi saaneex nga fekkee benn histoire déggaat ñu koy nettali yow sa wàllu bopp da am problème naan bi ma déggoon bii la. <laughs> Eh, eh. <laughs> wala beneen dégg naa sunu kilifa gii nekk ci Tiwaawan. Mhm. mu di ko wax njool mu di ko mhm. wax. Mhm. ni nellente da ngeen di nettali li ngeen di nettali nekk dëgg fen la. dëgg la. waaw mooy nettali dëgg guñ la laajul. waaw saa fen baaxul. Euh, ah, alaaj ñu dem demal demal. Euh, dafa am ku ma yób dafa am ku ma yóbbante. waaw. mais tey si miraas laa jëm oustaz. waaw mhm. dafa gaañoo léegi def na cinquante deux ans. Hmm. ba tey kenn miraasu. papa ji ah papa jam bi yàgg na. miraas bi périmé na. walla ba tey miraas baa ngi sur place. naa ñëwaat si beneen. <laughs> nga ne papa ji. boo génnee àddina. ñu war la miraas. <laughs> bu ñu suulee ba wane gannaaw rek nii ngay def. di xaar ñu miraas. waaw nga ni nii. <laughs> jërëjëf Aziz ci question bi. 52 mi ngi xaar mais miraas bu diiree woon 100 taxul mu pirime dañ la war a miraas. wallaahi. Sénégal dañoo gannaawal miraas gannaawal miraas ba mel ni miraas bokkatul ci diine. yàlla wax ci miraas te yàlla wax ci alquran. waaw miraas nettalil ko boppam moom yàlla. jël ko au sérieux mais ma ñëw mhm. yàlla dafa wàccee ay aaya yu baree baree bari mhm. yoo xam ni spécial miraas lay jàngale mhm. dem ba àgg ci ni inna alladina yakuluuna amwaal al yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naaran hmm. oustaz deel ñëw ci seen <laughs> yàlla nee na seen national yéen ñi def addina muy kër hmm. ba jàpp alalu miiraasu jàmbur yi di lekk dëkkee kër yoo xam ne moomoo leen ko dañ koo war a miiraas yàlla nee na ngeen yëg ak ngeen ñàkk yëg li ngeen di lekk mi ngi mel ni safara ci seen biir bi ku ñu war a miiraas nga jàpp ci alal ji di ci dund xañ ñi moom alal ji seen alal kër yu ci bari waxuma la miiraas mii kese mii kese boo ko tuddee dënn yi tànk bu fi kenn waxati waxi miiraas te ki fi jóge alal jim fi bàyyi ba mu faatoo la ko ay doomam moom ak ñim fi bàyyi yàlla wax ci alquran ku ne cir bi mu am ci miiraas yusikumullahu fi awlaadikum lizakari mislu haddil unsayayni fa in kunna nisaan fawqa snatayni fa lahunna sulusa ma tarak wa in kaanat waxidatan fa laha nisfu wa li abawayhi li kulli waxidin minhuma yàlla di nettali miiras niñ koy defee soo fi bàyyee ñaari doom kii lii mooy cëram mm-hmm. boo fi bàyyee ñetti doom kii lii mooy cëram bu dee ñetti jabar la amoon bu dee ñaari jabar la amoon yàlla moo ñu détailleel miiras kenn mënu koo kenn mënu koo jaxase mm-hmm. ku ne lii sa cër mu nekk diw lii mooy cëram diw lii mooy cëram diw lii mooy cëram bi mu demee ba aaya bi di daanu xam nga lu xam nga lu yàlla wax mm-hmm. wasiyatan min allah lii nag conseil la rek bu leen yàlla di jox pour ngeen bañ a am problème séddalee leen miiras mi nii leen ko yàlla sante nii la ko yàlla waxe bu kenn def li la neex Sénégal ñu ci bari miirasatuñ mais dañuy séddale naka parce que waa ji ñaareel bi la gën a nopp waaw ñu jël alal ji li ci ëpp féetale ko ñaareel bi te ëpp ci ay doom waaw te góor moo ëpp cër jigéen lan moo tax am na famille yoo xam ne bu kilifa gi génnee àddina kenn tudd miiras am famille yoo xam ne yàqu na fi jamono tollu ndax miiras mhm. ki fi ki fi góor gi bàyyi mhm. tegul mbir mi ci yoon mhm. am na ci taaw yoo xam ni nanu waroon a taxawee xool seen digganteek seen borom taxaweewul noonu mhm. mooy maa gënoon a jege sam papa mm. sam génn na àddina ma jël li ëpp ci alalam def ko ci sama tur ay gis naa ko man la man la man la sama borom kër gënoon a jaxasool waaw maa nekkoon kaani xeeñam waaw bàyyi na fi alal moo ma may kër gi ma profitoo jël alal ji miite ci sama tur waaw ak ñi nga xam ne seen bàyyi day tëdd feebar ñu yóbbu ko ci kër gi seen papa ni nii mhm. tëdd ci lal bi dootul mën a wax day day day liyaar rek ak di wax foofa nag sa oh, loo xaaral xaaral xam naa li ngay wax xaaral naan woo oh, oh, di def noonu <laughs> ma daj am ñaar ñu kompaloo dugg ci néegi paa bi daj di coffre foor bi sàcc fa ay millions. waaw paa ah, ah, ah, di leen boole. waaw waaw. di leen boole ñu daw. paa bi dee. mais ça. defoon naa sax day signé ne maa leen may. kër mais mais Aziz. paa boo feebaree boo feebaree ba toll ci benn étape bi. ba nekk ci diggante dund ak dee. Mm. waaw foofa loo fa mayee du valable. ah bu ne mais dañ koo sàcc. mais am na ñuy maye. boo ne sama jabar ji laa am na ñoo xam dañuy bàyyi ba hospitalisé la. waaw. fexe ba nga may leen terrain. wala nga may leen oto. wala nga may leen kër. te jamono bi bi nga leen koy may àndoog sa xel cent pour cent. da feebar. loola da ngaa sàcc alalu jàmbur mais daganul. miraas boobu ñëwee. da ko war a joxe. kon Sénégal dana toj. bokku ci moomoo ko. saa xam nga yaa ngi toj ci waxtaan mais saa réew mi daa fees del del del litige. ak lii Sénégal laa la wax Sénégal kër yi fi miraas da nga leen di wàññi. bari na kër goon naw ci wàllu diine bu fa kilifa génnee àddina kenn du miiraas kenn du tudd miiraas ñu ëpp doole ñooy jël alal ji am na kër yoo xam ne dañuy séddale mais miiraasunu Sénégal doo tudd miiraas déedéet ñi gën a néew doole yenn saa góor gi bàyyi soxna soo xam ni ci dernier dundam la ko takk mu am ak moom ay doom yu ndaw. waaw souvent ñooñu dañ leen di seppi ci miiras bi. duñ ci bokk te doom te góor gi moo leen. jur nga seen yaay daa njëkk a dee seen papa ñu ni yaay jooju du doon. waaye déggoo li ma la wax. dama la ni. waaw problème bi ci miiras ci Sénégal gii. nit ñi ñoo war a delloowaat seen xel ci yàlla. mais ah. mais mais oustaz miiras dégg naa oustaz miiras dégg naa spécialité bu ñuy jàng la ci diine ah. mais dañ koy jàng. waaw kay réew mi. waaw ñëwul réew mi. suñu bëggee jàng attey miiras mat ñi bind nañ ci mm-hmm. Seydil Hadji Malick bind na ci mais yow loolu du sa spécialité non maanaam alquran moo séddale lu ma la wax sànq aaya bi yàlla wax aaya alquran bi yàlla wax mais ma la mën nga miiras mën naa miiras mm-hmm. ah, bi ma la jàngal léegi bu ma la ko firiloon yow ci français mm. tey bu yaatu woon ba ma jàngal la ko yow saa neex boo fi jógee kuy miiras na la woo nga séddale mën nga ko français bi bul ci dugg yow <laughs> dégg mm. yàlla moo miiraas nit miiraasul yàlla moo ñu jàngal miiraas mm-hmm. ne bu fekkee ku góor ki ñaata nangami doom la fi bàyyi mm-hmm. ku ci nekk lii mooy cëram ñu ci góor ñi yàlla da koo jàngale ci aaya alquran boo demee ci yuusikumullahu ci suuratul nisaa yi aaya boobu ba aaya bi daanu ba ci aaya bi ci topp walakum nisfu ma taraka azwaajukum mm. yàlla nee na li leen di jàngal fii mooy ku fi bàyyi alal nuñ koy partagé. waaw tax lu tax lu tax ku sa bàyyi dee ku njëkk a dee sa bàyyi. même wax la sa doom sa doom yi sa doom am. maa ngi ñëw saa waaw. bi ñu yàlla jàngalee waa même ma ñëw. bi ñu yàlla jàngalee miiras. ba ku nekk mu wax lii cëram. Hmm. yàlla ne lii nag maa leen ko conseillé parce que damay bañ problème. Hmm. damay bañ taaw bi. Hmm. féetewoo alal ji. damay bañ doom ji daan liggéey ak pàppam gënoon a jege papaam tëdd ci alal ji dama bëgg bu ngeen koy séddale ngeen teg ko ci dëgg teg ko ci yoon suñu dee miiraas góor gi ñaata soxna la fi bàyyi woon ñu ne ñeente soxna ñu jox leen seeni cër soxna yi soxna yi su fekkee nag alaaji ngoon na lii di ñëw bëgg naa nga indil ma bu dee 15 minutes sax nit kuy def mirage waaw waaw am naa ci kenn nañ ay question daal mm-hmm, mm-hmm. waaw yaa ngi dégg saas mi maa ngi koy laaj mm-hmm. xam naa ne yi ñu koy laaj yi ñu lay laaj dafa bari yaa ngi dégg sax loolu dañ koy nañ euh, tëj mirage bi waaw même ma ñëw bu fekkee dañoo wax ku ne lii cëram waaw yàlla ni man maa xam ku ne lii cëram wax naa leen ku nekk lii cëram jox leen ko cëram waaw kii mirage bu ñëwee ci kër gi di mirage li mu war a njëkk a laaj mm. mooy ki faatu ñaata soxna la fi bàyyi. waaw mais kii miraas dafa war a neutre. alquran lay attewoo pour miraas. ah mais mënuñu laa gis ci guddi gi ger la ne la. am na bu ñu dee séddale miraas. waaw sharia amul complexe saa neex. Hmm. li yàlla jàngale loolu la ñuy jàngale. Hmm. doom yi nu fi bàyyi. ñi fi juddu ñi ci juddu ñi ci juddu ci buumu sëy. ñu ñoo am droit ci alal ci ñi ci judduwul ci buumu sëy bokkuñu ci miraas bi. mais ñi nga xam ne seen jëkkër da leen a takk takku. takk na leen mais mbokk yi siiwalu ko maanaam daa dem luyee ay paa takk leen euh, takk xale bu jigéen bi. su fekkee dem ak lépp su fekkente ni bi takk ko takk suuf gu ñuy nëbb bu kenn yëgul. waaw ah kenn dina ko yëg ay takki woon. <laughs> yaa ngi dégg waaw. su fekkente ni <laughs> su fekkente ni bi takk gu siiw la gu ñu xam. waaw waaye nag xam nga takk suuf dafa am ay façon. dafa lu ñu tuddee an nikaaxu sirriya am na takk goo xamante ni bii takk suuf lay doon mais day dagan day dagan waaw xam nga mooy ban mooy ki nga xam ne daa ragal aawam ba bu takkee jabar aawa bi ray ko waaw kooku am na droit takk jabar nëbbu ko aawo bi mais ñi ko war yëg ñëpp danañ ko yëg ah, mais jabar ji moom aawa bi da ko yëg ma wax la hmm. mais jabar ji moom du ko yëg waaw parce que sa aawo yëg sa jabar du farata waaw kañ lay aye ji dafa rafet même ma wax la rek dafa rafet rek mu yëg ko mhm. mais nit mën na takk soxna nëbb ko aawoom bu ñu ko laajee lu tax nga nëbb ko sa aawoo mu ne ah ay la yéwén su ko yëgee mën na maa rey wala mën naa koo ñàkk parce que nit dana natt température u jabaram ba xam ne kii moom dof la da lay rey bu leen ko wax dara bu leen ko wax dara mu nëbb ko ko mm. d'accord sharia may na la nga yoreel saaneex bor mm. te bu saaneex yégee ne takk nga jabar mm. mu ne la comme da ngaa mën bay takk fay ma sama xaalis nga takk jabar nëbb ko saaneex ndax danga koo ameel bor mm-hmm. l'islam may na la boo ameelee saaneex bor war a julli ji ca jàkka ja mm-hmm. te boo génnee di dem jàkka ja dajeeg saaneex mu ne la fay ma bul dem bul julli ji waaw kon alaaji ñu jumaa bari na ñu jumaa wàcc dëkk be la alaaji ah, léegi boo ñëwee di miraas ma tëj ma tëj <laughs> Aziz soo ñëwee di miraas mm-hmm. ñi judduwul ci buumu sëy bokkuñu ci miraas bokkuñu si muy benn soxna yi bu fekkee dañoo ëpp ñeent. soxna yi nga bàyyi. su fekkee dañoo ëpp ñeent. ñeent ñi ñoo bokk ci miraas mi mais ñi ci topp bokkuñu ci. Mm-hmm. loolu moom charia la léegi am na ñu bëri su fekkente bi charia la ñuy jàngale. Mm-hmm. dañuy wax li l'islam wax. bëri jël nañu loolu mais dañ maa dee léegi. nee nañ côté góor la ñuy wax miraas côté jigéen bu dee yaay ju bàyyi. alal jigéen dinañ ko waaw dinañ ko def loolu. waaw ndax dinañ ko def comme ni ñuy def góor. mais jigéen dañ koy miiras mi ngi mel ni tey par exemple li ma la wax sànq. Mhm. doom ji judduwul ci buumu sëy. Mhm. mën na dond yaayam. mais du dond papa ah, mën na dond yaayam. Ah. mën na dond yaayam mais du. mais du bu ñuy miiras yaayam da siy bokk. mais du dond papam. du dond papam. dinaa programmer. journée boo xam ni émission boo xam dañuy ñëw. def si miraas spécial duñ waxtaane benn point. waaw miraas dugul miraas. sunu suñu ñëwee ma ci man liñ ma ci laaj bari na. programme ko suñu ñëwee. waaw spécial miraas ngonal parce que xam nga yow yaay sunu star yow léegi nag ça dafa am beneen problème bu ci am. waaw am dafa des ay questions. waaw waaw mais ci ci lay daaneelee. waaw dafa am koo xam ni moom. jëkkëram da koo may kër. waaw wala oto. kontaan ci moom may ko ko. bi muy dund. espace ak trois heures du matin am na kër yu lusigul trois heures du matin mu may ko je le dis haut et fort am na kër yoo xam ne alaaj Saane kontaan may ko maye yéen jénn jigéen ñi ah, ma bokk may matin du kër mais may may la bu bindee décharge la ay këri deux heures saa bu bindee décharge la ay këri ay këri yenn colin yi <laughs> parce que góor je de toi am na góor xelam dafa gàtt am na situation booy teeloog moom am na ñoo xam ne dañ naan la je tonton ma maman. waaw ma maman ah. waa góor ñi fi toog amatul yaay bëri la de. am ñu may seen yaay. ils ont mais ils ont offert euh, euh, am na ñoo xam nga foofu xam nga sa yaay sonal na ci biir kër gi mu ni mère bi elle m'a merde attention. mais xam nga saa foofu foofu. foofu foofu boo fa mayee foofu boo fa mayee wala nga yëy si ngom te mayee woo ko sa sago parce que jamono boobu nekkatoo <laughs> nekkatoo mooy lan waay oustaz ku yaa ngi dégg mi ngi mel ni ma nit mas na ma ko laaj ci koor gi bi may conférence ci question yi ma doon tontu daf ci bokk am ku ma laaj ni ma su may séq sama soxna damay saaga may laaj ndax saa may laaj ndax saaga yooyu dañ ma ciy bindal bàkkaar wala déet. ñoom ñooy commandé saaga yi. Youssou Ndour a mën a wax ñu ne xaaju guddi boo nekkoon bëccëg saaga ñoo koy commandé. xaaju guddi boo ma ni ko di commandé seen saaga ba pare ma ni ko. di di ko décommandé. nit lépp lu muy def te defeewu ko sagoom. waaw dagan wala bu paree nga ne ko yaa waxoon lii mu ne waxuma ko. te <laughs> yàlla. Youssou Ndour a mën a way xaaju guddi boo nekkoon bëccëg. kenn du la ci topp. moo mën a way. kenn du la ci topp. parce que ba nga koy maye. wala ba nga koy wax. waxee woo ko ci sa sago. léegi nag kiy génn addina may jabaram oto wala mu may ko kër. am ay preuve. waaw nit toog. saa neex. ñëwal nga ñëw Aziz ni la. Hmm. say mii kat. attention nee na bu jël si loo ni bu ko nat ah, ñun nañ nekk seede yi waaw Cheikh Ndiaye na ñun Cheikh Ndiaye mooy suñu kii sarax waaw moom ana moom naa si ñëw <laughs> yaa ngi dégg Cheikh ah, loolu nañ tëb loolu yaa ah, nga may ko oto waaw Sané xam na ni Aziz moo may soxna si oto bi am na seede suñuy miiras. waay déet waay nag yow tamit. waay yow waay waay yow. parce que la wala yow teen koo kii. non yow oustaz bu ko nag si kii. parce que comme yow rek maanaam. ah léegi par exemple waaw ñu ni comme waaw ka nekk Italie may saa neex may Sadia oto. déedéet yàlla e ko baax alaaj bu ko jut alaaj bu ko jut alaaj bu ko jut ah man waaye yow sama ma lakk ci loolu. waaw kan moo réaliser ku réaliser émission bi sax ku réaliser bi. waaw nañ bàyyi loolu. Ah. nañ bàyyi loolu. mais maye daal bu amee seede. waaw du bokk ci miraas bi. waaw d'accord moo tax kun ci may. waaw ak ni jamono demee. waaw fexeel ba liñ lay may na am seede pour ëllëg. mais parce que am na ñoo xam ni ci feebaru nit ki la ñuy profité. jël ci ay beewam. waaw féetale ko seen bopp. mais oustaz nag kaay ma xamal la. non nit mën nga tëdd sa kaw lal nii. sa soxna génn ci ah, saal de bain am am am lu mu sol am na ñoo xam ne balaa seen soxna di agsi ci kaw lal bi dañuy kontaan ba jóg tibb ci xaalis bi fa mu ne di leen baax di ko maye wala ñu jóg rot ci benn këyitu kër way la wala ñu jóg jël jaabe oto bi ni la may la ci instant boobu te fekk ni dara sax amagul maye boobu daganul dagan na kay ah, waaw kay foofu naa waxee mais non non non foofu foofu Aziz jarul seede waaw parce ah, que yow ak moom du fa am parce que ñaari trois heures du matin fooy woowee parce que foofu foofu moom ak yàlla la waaw am na ñuy kii de naan waaw waaw waaw xanaa nga enregistré ko paa yi sob paa yi yéen paa sob yi nag ñëw dem ñuy dem njàkk ni way yóbbu ko yóbbu ñaan mii moom ni doon yóbbu bi la ah? duggee du daa boo demee da doon xeex ak jabar dem demee sàcc fa dugg léeg-léeg ñun xuloo li ngeen jote kenn du wax <laughs> yow loolu teg sëñ bi mu ne moo tax daal saa waaw ko moo tax daal saa euh, maye moom maye moom saa na am seede nit ñi it xam ne yenn saa yi jëkkër mën na may soxnaam loo xam ne ba mu ko koy may kenn fekkewul ndeysaan waaw parce que du lépp ngay leeral mënoo looy may sa soxna woo ñëpp ni leen maa ngi may diw nangam su ko defee su ko defee nit ñi ñooy am compréhension boobu maandu ci diggante ñaar ñiy sëy saa neex jigéen ñu bari ñu ngi dund addunay problème ci seen néegu sëy yi parce que mbokki jëkkër yi bàyyi wuñ leen pour ñu sëy léegi nag euh, ñu fàttali gars yi ni leen hmm. ñi ngi émission ngonal waaw hmm? Serigne Cheikh nee na lalu lalu lalu lalu sëy hmm. ñaara fa xaj jëkkër ak jabar keneen amaatu fa place. oustaz am na question bu ma la bëgg a laaj nii. mais mhm. euh, damaa am sama gorom magu magu Sadio Seck la bu ñuy wax. Mhm. bu ñuy wax Xaadim Seck may na la terrain. est-ce que. may agis bi terrain may ma terrain. ndeysaan. maay gorom day may tere yi di ma jaay. Mhm. yére yi jaay nag xam naa ne yow mënoo koo sol. yooyu moom mag Aziz ak Cheikh Ndiaye dinañ jël yëre yi. waaye terrain yi moom. dinaa fexe mu ñëw indil la sa bos. indil Aziz bosam. indil ma sama bos. macha allah ñu koy wax Xaadim Seck. Xaadim Seck waaw waaw. jërëjëf Xaadim na ko nuyu sunu waa ji. waaw saa yàlla yàlla fay laaj tamit kii waaw bala mu kaa tëj. waaw parce xam nga fi yaa ngi woote. waaw waaw xam nga woon rek mbirum Xaadim bi waaw. waaw mbirum Xaadim moom balaa Aziz di continuer. waaw yàlla na ko yàlla jox terrain ca àjjana. waaw kana Xaadim mi ma may terrain. yàlla na ko yàlla may terrain ca aljana yàlla teral ko ndax sëñ Mansour borom daara ji